booy bu am jom la xale bu xale bu responsable loolu moo waral nga dénk ko yenn responsabilité yi yow yaa yaa ko formé ci sécurité. jërëjëf ñoo ngi kon ne ci émission bi yow xam naa dañ jokkoo après. abu abu loolu lépp ci émission mbër ci métier mbër ak métier mbër ci waaram euh, rakk ji Euh, kon kii moom mooy Abu. waaw kii mooy Abu moom moo defal formation waaw moo defal samay moroom yu bari fii nii formation waaw. jox leen seen diplôme jox leen seen diplôme ñu jox leen seen diplôme. mooy instant bi moom yaa ngi sa diplôme. waaw maa ngi sama diplôme te maam moom waxtaan nañ am nañ yeneen kayit yi ñu war a defaraat. yéen a ngi ci yeneen projet. ñu ngi si yeneen projet te xam naa dina sotti. booy nag booy yow booy yow yow wax na nga de yow xale bu ndaw nga dugg ci yenn démarche yeeg yooyu noonu mënoo xaar euh, nekk pas yooyu noonu. Ah, non xam nga nit ki moom ku nekk ak la yàlla di séddee man surtout Seex Umar Fuutiyu la. mais xale bu ndaw teel a ñeme risque teel a ñeme responsabilité aussi. non loolu yëpp si si deretu gor bi la rek ndaxte boo nekkee xale sàccoo fenoo nga nekk ci dëgg rek dangay dem ba ñeme xam nga ndaxte doo doo ragal yenn yi quoi te si loo nekk rek yàlla da la siy dimbali man si lu ma nekk yàlla dama siy dimbali fii toll na benn benn moment gars yi dañ ma doon xeex mais zoman fu laa wax yàlla rek moo fi ne billaahi sa xeex di la jëm kii si suuf mais amaana kii la rek xam nga lépp loo gis yeeta la xam nga yàlla da yenn saa da lay won ay misaal da lay won ay misaal waaw da lay won ay misaal lépp si lépp bépp liggéey nag bépp liggéey bépp bërëb ak bu ñii di defar ñi ngi yàq. moom loolu moom yàgg na fii Sénégal lañ nekk Afrique lañu nekk mais rakk ji booy fente nga de yow yow ma tudd làmb ji rek adversaire yi nga war a bëreel rek rek jékki-jékki nga rek rek nga waa fente gayen génn foofu noonu nu demee noonu ñan nga war a bëreel say adversaire ñan la. non nga dama gëj làmb ji. dama gëj sa làmb ji mënuma tëb tëb rek ñëw kii damay confirmer damay ñëw confirmer damay ñëw confirmer leen ne leen asalaamaaleykum waaw su ma confirmer rek ñoom dinañ xam waaw dinañ xam. Mhm. te xam naa ne instant yi moom ay booy yu yéeme ñoo fi nekk ay booy yu tàng jër ay Tapha Mbeur moom ñemewoo ko laaj revanche kooku moom ñemewoo wax ay waxam. combat bi leer na leerul yoo dafa mbër mi ngi toll ci ci level bu kawee yeneen booy ñu ngi fi ay ñoom it Liss Ndiago ñoo fi génn yaa ngi may dégg ay ñoom oho ay ñoom it Ada fas yaa ngi may dégg ay booy yu tàng jër non laa bu ji dafa yéemale ay phénomène ñoo génn ay xale yu ndaw ñoo ñëw ñaan di bëre ay grand combat ay ñoom caatu rëbës fii ay ñoom caatu fora ay ñoom cité bu rëbës yang may dégg ay cité bu rëbës ak caatu caatu rëbës ak cité bu cité bu ngor grand combat la ñuy bëri ay boo yu ndaw xale yu ndaw say morom lañu mais ñooñu moom xam naa ne moom xalaatoo tudd tudd sax jaar sax seen tur sax xalaatoo ko. non di profito si wax ji nga wax di si occasion mu dee Liss moo jël Tapha Mbeur oh, oh, oh damay ragal Tapha Mbeur door ko mu daanu Liss Ndiago lan moo ko dugal ci Tapha Mbeur booy boobu. non c'est xam nga boo nekkee xale gëm sa bopp dara du la jaaxal quoi. te Liss dafa gëm boppam. merci est xam nga ni est-ce que xam boobu noonu est-ce que xam nga ne Liss ca kaw la teg ay bëtam boobu dafa jàpp ne dafa gëm ne ku taxaw ci kanamam da lay fël jàll dem uti leneen liis Ndiago mentalité boobu lay demee maanaam maanaam c'est un gagneur. non laama ji ji moom noonu la xam nga tey moom mbooloo bi topp na ko yaa ngi dégg instant dafa war a xippe ay bëtam xool yaa ngi dégg fu muy teg tànkam jéem ak mën a bëri non bëre bëre moom. liis liis mën a bëri. liis moom defandoo nañ mbapat. mbapatanoo nañ. muy bëre premier combat muy bëre grand combat. mais est-ce que xam nga ni Liss Ndiago Tapha day neex. non combat la. ñaari mbër yu mën ambiance. xam nga xam nga xam nga lu tax combat la. Liss day bëre si. te Liss day taf. te mbër buy bëree taf rek chaque jour mën na la tromper. ragaloo ko tafa mbeur man tafa tafa tafa da sereewul ku lay lay dugal kan kepp no lay def gars dugal ko kang kang mbeur mi nga kepp kelep ah ma les na na ci antenne rek xam nga tay bo amé adversaire nga xamné ne la mëne nga étudier ko lolou ngay antenne légui lolou ngay andi ci làmb ji ak loy tax nga daan ko làmb ju war neex moy Liss ñago tafa Mbeur parce que ñaan ñëpp mën ambiance Liss def Liss def mëna fecc Mbeur def mëna fecc bu ñu duggee ci géew du ñu mayee 15 dañuy bëri euh, kee liis day bëri ma waneegul xeex xeex bi demeewul noonu digganteem ak général Kayre dafa ñëw woo général ci xeex général wuy si ko wuy si ko ci xeex mu rof ko ci xabal weeru kon kooku bëree bi la privilégié mais Tapha day bëre day xeex Tapha Mbeur ñaar la boole yaa may dégg te benn instant mën naa ne Tapha Mbeur moo gestu parce que dafa bëri ak Ada Fass ñàkk liis bëre daan daan daan caatu rëbës Tapha Mbeur def benn pas pour ñu croiser liis dafa bëgg dem day bëgg a faxas Tapha pour avancer dafa mbër day bëgg a daan Liss Ndiago teg ko place am delluwaat fu mu nekkoon. waaw ndaxte xam nga tey combat bi moom dafa mbër bu juumee lu ndaw rek Liss mun na koo daan bu juumee lu ndaw rek lu tuuti su ko mënee Liss Liss daan ko Liss daan ko quoi ndaxte xam nga xale bu bëgg bëre. amaana liis lu muy bëre noonu bañ a xeex tey boo nekkee xale gis daan rek yow doo xeex. yow booy yow sa adversaire ñan la oh petit petit petit instant bi xoolal promoteur ñu ngi seetaan instant bi xoolal neel rek maa diw combat la wala diw na jël sama avance ma xam ne nag xoolal man booy bi ma xam booy nag booy nag changé nga de ci diggante bi man ki ma xamoon yaa a 10 ans. kooku noonu ak ki ma toogal instant bi nii c'est pas la booy bi ma xamoon dafa rëboon lool lool lool jamono yi mbapat mais instant bi yaa ngi commencé sedd instant yi commencé nooy affaire sedd ñan la ñi nga war a bëreel tuddal seen tur mais yow yow yow yow yow mi war nga xam samay adversaire xam naa leen xam naa ñan nga war a bëri waaw yow moom war nga xam samay mais mais booy duma la laaj di tontu ah armée ma mon combat la armée man armée bu benn braaj non armée armée armée sax am na combat nii armée mi ngi war a bëri ak ambulance mi ngi war a bëreeg ambulance mais yow say morom bëri nañ fi doo de ay ñoom 2 giga fii ay ñoom yang xaw si ñor fii ay ñoom caatu daaw dafaal non non non booy làmb ji dafa garaaw ay phénomène ñoo génn wóor na yàlla ay ñoom albarka kayre ay ñoom réparé doo leen tudd de. non nga tey làmb ku nekk sa yoon la rek. waaw tuddal ñooñu tuddal ñooñu. non ñooñu ragaluma leen yow xam nga loolu. léegi na te diggante yàlla yow ku la woon tey ne la avance bu réparé réparé bu réparé rakku Marley réparé bu Papa Kane réparé bu Géejawaay petit ku la woon rek ne la avance bu réparé mi ngi nii ñeme ko koo man mbër loo gën a danger moo arrangé ma. nga meloon temps booy noonu nga meloon mais est-ce que est-ce que est-ce que kooku moo fi nekk ba léegi. ba tey looloo nekk si man tey laa gën a responsabilité sax. ñeme nga réparé. <laughs> non bàyyi la nga wax rek. <laughs> réparé réparé jàpp gaa yi dugal top 5 lay de ree la quoi. ree bi nii dafa yàgg si man. petit ñeme petit petit ñeme nga réparé. waay yow. na ñëw. mu ñëw aca ah, dal na ko dal. instant bi mi ngi war a bëreeg albarka kayre kon foofu ku daan ak ku daanu. Euh, albarka moom ñeme woo ko moom kooku moom da ko fi bàyyi. Seydina bàyyi la ngay woo ko wax ñeme woo ko ay ree sax may def. Ah, barki Serigne Fallou aw ma ragal si kaw suuf ku dul yàlla suñu borom. deux giga bu parcelle ak ak man a bëree deux giga non non non malgré nag rëm moo ko freiné combat bi passé rëm moo ko freiné mais ci ay lancé lancé bu exceptionnel la nekkoon tegale ay victoire waaw loolu ñoom la rek nga man su ma ñëwee ak sil bu may indi ardo ba ñu kayre oui saawaay saay yow sëy naa nag ma bëgg Jacob Baldé quoi da ngay signé le retour le retour de petit day am mais dama la bëgg a xamal ne nee naa la sànq booy ay phénomène ñoo génn ci diggante bi ay booyu yu tàng jër ay booy yoo xam ne seen combat day metti mobiliser la ñuy def mobiliser lu bëri du stade bi moom te ay mbër yu ndaw la ñu de ay booy yu ndaw lañu mais bu ñuy bëree stade bi day fees dell bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex caatu daara faal kooku moom il est pas sérieux gos boobu kooku moom fii la lay teg moom mbër bu ñëw da teg fii ña ñu dem zongale ba ci kaw dóor ci suuf rakku dubales numéro 2 la rakut do wala islam macca man mom, man mom, sama retour sama retour maanaam léppay taxaw daal léppay leer léppay leer xam mhm. naa ni moom ni ma la xamee woon ni ma la xamee woon xam naa ne ba promoteur bu la tëgal combat du ko rëccu ni ma la xamee woon de xam naa ne moom promoteur bu la tëgal combat ndaxte nii nii dama gën am jàppale waaw dama gën a ndaxte tey doon jaaxal sax bu may mbabat nii daf ma yomb. mooy tey taxaw ticket yi am ñu ci war a taxaw. waaw si lépp mystiquement tout waaw. loo xamante ne nii sax daf ma doon ñàkkaloo sax léegi daf ma daf ma yomb quoi. kon nii petit est retour. yàlla baax na pour le retour. Mhm. beneen affaire dañuy gis. Mhm. petit damay retour moom incha allah. est ce que bu bees tax la ñuy gis. Ah, new look mooy lu bees. new look ah, c'est en anglais boy, boy, boy, boy, booy nag doo ngaa ka waay booy nag nante nga new look mooy bu bees tax loolu c'est en anglais. <laughs> waaw new new new naññi. new naññi kay new naññi. bu leer ah. hein? mhm. voilà c'est qui est clair on avance raka ji question bu lay poser yow bokkoo ci ah lamb ji wër nga këpp kan moo fi daax a bëri. lamb ji wër ah Balla Gaye mën na bëre moom. ah sama question sama question dafa leer dama ne làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëre. fi dàq bëre si arène bi wala si mbapat bi xam nga tey làmb ji dafa am maanaam li simple ak li traditionnel. woy man làkkuma la anglais làkkuma la français làmb ji laa la wax buñ ne làmb ji lit avec frappe ak lit simple ak ci biir làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëre petit tontu ma. ku fi daa ko bëre xam nga bëre dafa am bëre assuré ak mën bëre am ñoo xam ne dañoo assuré bëre. kan nga gën a naw ci bëre yow kan nga gën a naw ci bëre. làmb ji nii nii non Reug Reug moom naw naa ko si bëre torop waaw ndax. may ñëw léegi léegi maa ngi ko romb ci 4-4 am station Kër Massar maa ngi moom mu ngi ce nekkul woon di dem sax peut-être bi coowaan la jëm de parce que kooku ku ko xam-xam ko ci ñeme entraînement moom nga gën a naw ci bëre. moom moom. మద్దతు ఫయాలో బరెమ్మం complet quoi rëg rëg limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji rëg rëg ak kan rëg rëg Balla Gaye Balla Gaye euh, ak euh, Modou Lo Modou Lo mën na bëre Modou Lo mën na bëre Moustapha Gueye Moustapha Gueye bayina beure ancien mbër la mbeur yi fi nek actuellement les leaders en activité jox nga ma Reug Reug bala gay de modulo modulo Modou tamit waaw muna muna beure na mën na bëre Tapha Tine ak euh, Tapha Tine Tapha Tine Reug Reug les prénoms. ak bu baat ñi ñi ñoo dàq bëri ci làmb ji rakk ji bëri fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër. kay ñeent yi mooy complété mbër moo tax man ma ne la ban moo ci ëpp solo waxuma la ban moo ci am solo parce que ñeent yi mooy complété mbër mbër day mën a bëre mbër day ñeme entraînement mbër day am gàllaaj mbër day am fit ñu ne il est mais ban moo ci ëpp solo bëree fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër. entraînement. mooy pay. Ah, waaw mooy premier yow nga war a bëree ji un jour sa jour combat ñu woo la téléphone ne la allo petit dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi fi benn bi wala doo bëre ban ngay bàyyi. ban ngay bàyyi maanaam. nga war a bëre ji sa jour combat. ñu woolal téléphone ne aloo pët yi dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi fi benn bi wala doo bëre ban ngay bàyyi. ah moom da koy fàtte ne nga yóbbu entraînement waaw entraînement nga bàyyi gàllaaj. gàllaaj danga nga koy fàtte. nga yóbbu bëre bi fit bi entraînement bi. waaw ndax gàllaaj muslaay la rek. Seydina ak ak. maanaam ma gàllaaj rek rek gàllaaj rek la. dëgg la gàllaaj day joué si si doomi ndax day ubbi day ubbi nit ki mais am na fu làmb di toll dangay ngay yóbbu sa bëre yóbbu sa fit ndax boo boo ñàkkee fit nga bëre ko am comme man yenn saa dama doon dajeek mbër si biir àll bi dama koy këdd yuuxu ko mu afale ma daan ko mu dem ma dem. non gàllaaj da nga koy tegee ne nga ñëw bëre yóbbu bëre fit entraînement lu tax mënoo bàyyi bëre bi non bëre bi lu tax mënoo koo bàyyi ndax moo lay tax a am ndam lu tax mënoo bàyyi entraînement bi entraînement bi ndax mooy mooy mooy sa kii mooy sa assurance moo lay assuré lu tax mënoo bàyyi fit bi fit bi mooy maanaam tey nit ki am na ñoo xamante ni ragal géew day tax ñi daanu ñoo xam ne manque fit ci biir géew ndaxte xam nga nit ku ne booy wax man bu may doog a commencé làmb sax sama premier combat bu may doog a commencé làmb hésité naa te hésité fit tamit da ciy dox da ciy waaw. boobu daal gàllaaj ngay bàyyi. jour boobu moom gàllaaj ngay bàyyi. Eh, rakk ji ba tey ci question réponse bi nga dalee seetaan lamb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. combat bu ma gën a marqué Modou Lo Balla Gaye. Lo Balla Gaye 2010. waaw combat boobu moom ah <laughs> combat boobu moom daf ma marqué sama. est que amaat na fi boo boog léegi. non boobu mënu fee amaat. fekk bi bu koy bëree ci moins de une minute lañ ko bëree combat bi jeex mais avant combat bi coow li amaatu. waaw fee amaat xanaa Modou kii tamit mun na ko xaw a kii tuuti mun na koo jege tuuti mais. c'est que xam nga Balla Gaye da di xoromu làmb quoi. c'est un showman Balla Gaye de dafa mën a jaay làmb. nice Balla Gaye xam nga non nice kay. nee na Bombardier tous. non Balla Balla Gaye ah, man man daf man neex quoi barki Serigne Touba. c'est un showman dafa mën a jaay làmb. daf man ma neex. billaahi waxee ma ay kii. ndaxte waaw nit ki moom da nga koy nangul loo xam ne moom la yàlla def si moom boo bëggee boo bëggee noppalu ko waaw boo bëggee noppalu. Balla Gaye daal Balla Gaye Modou Lo mooy combat bi la gën a marqué mais yow bi nga dalee bëri mbapat ba arène ban victoire moom la gën a neex sa carrière. ban victoire moo ma gën a neex hmm, dañoo newoon 4 litres ñu dem benn dëkk boo xam ne fii nii mooy Kër sàmba ma fay bëre benn mbapat man maa gënoon tuuti si ñi demoon ñu bokk écrit kat lañu woon ñun ñëpp ñu bëre daan ma wër làmb ji xam ne fii stratégie mooy tax ma jël làmb ji ndaxte kooku su ma ko daanee rek finaalu naa ndax ñee ñëpp dañ leen di baare après si laa ko def tafaa gay kii ben amna tafage ben combat bu mu beure moy amna fu mu pivoté mam jamban mam jamban waaw mais man pivoté bi dama ko rax pivot bi dafa am lo ci rax dama ko rax man na ak mom man samp bob bi lamb ji tass mooy booy gëj booy gëj naa gis beure yoy boy non non wër yalla 5 ans temps da ngeen di beure mbapat dama daan gis ay xeetu beure yo xamne gisatu mako am ñoo am dañ doon jóge ba foora di ma supporter si fu ma daane am na fu ma daanee double moteur suñu benn gaañ ku mënoon bëree bu muy bëree sax boobu maa ngi toog ay jumukaay ma dajak moom deuxième tour daan ko jël bu rëy yow maa am fa jëlee cinquante mille si biir géew gi mu ñëw fa sama lépp billaay am benn waay ju ne foora baatereel ma foofu xaalis weex tàll yow yow est-ce que du cat yooyu noonu affaire yooyu cat mun na see bokk. cat baaxul cat fu mu dugg mooy cat baaxul xale bu ndaw nii coow te laa topp nii cat lay topp waaw cat baaxul te xam nga nit ki tamit nit ki moom nu la yàlla kii rek danga koy nangu quoi waaye kii ndaxte yàlla tey bu la xañee lii rek mu ngi la ubbil leneen. mais aussi bi nga dalee bëree mbapat ba arène ban défaite moo la gën a metti sa carrière. ban défaite moo ma gën a metti comme lu ma doon wax rek sànq maag Tapha Mbeur pare woon naa ko ndaxte moo ne woon sama kii pour lancer pour ma génn arbitre bi yàq sama làmb di leen di leen soññiwaat si loolu quoi arbitre yi. ñuy gën a vigilant ci xale yi. vigilant xale yi ndaxte àkk sax mun nañ leen si dal waaw tey nit ki préparé combat am bay bëgg a dee ñëw benn kii rek nga yàqal ko yaa ngi dégg. tey tey booy dañ leen war a tegal vaar bu ñu bëree. vaar écran surtout arène nationale ba am na écran kay. écran boobu nañ ko taal. écran fonk booy bu làmb amee lëj-lëj ñi dem xool bu ñu xoolee bu kee ñu joxe bu ñu gisul dara ñu sifflewaat combat bi loolu moo gën mais loolu ñu ngi siy yaakaar ay booy yu bëri. ay boy yu bëri ñu ngi yaakaar te dañuy préparer combat xam nga nit ku lépp looy jooy rek na jiitu si sa sa sa si yow te amaana loolu bu daloon Balla Gaye wala Modou Lo ñoom dinañ ko wax. Euh, ba tey ci question réponse booy damay génn tuuti ci làmb ji ah rakk ji da ngay da ngay seetaan football. waaw football moom lu ma xër si làmb moo tax du sama affaire quoi. yow yow yow kon làmb rek ngay seetaan. dëgg fa yàlla. football ay Messi ñoom Ronaldinho ñoo rek laa ci xam. kon kon da ngay suivre tuuti. non ñooñu dañoo siiw. mais mais amoo benn club booy supporter. club. booy Real Madrid Manchester euh, Paris Milan Inter Juventus. daal sama équipe waa Gésu ASC Gésu. bu mu tasee daal. ASC Gésu ñooñu championnat Angleterre lañ nekk wala championnat Allemagne. Euh, championnat fii si koñ Sénégal bi. seen nawetaan mais mais rakk ji xanaa équipe nationale Sénégal buy football di ko seetaan. ah dama koy seetaan mais instant bi moom wax dëgg fa yàlla. lu leer est ce que équipe nationale buy football da koy seetaan. ba këtt ne jonn ba ñu dem fu sori daal dama leen di seetaan. waaw bu ñu fu mën nga ma limal cinq joueurs équipe nationale Sénégal actuellement équipe bi fi nekk actuellement mën nga ma ci limal cinq joueurs. lima la ñaari joueur rek. cinq la la laaj jox ma cinq. sunu sunu Sadio Mané international bu Liverpool. waaw Sadio Mané. xaw ak lan Gassama. Euh, Mamadou Lamine Gassama. waaw Lamine Gassama. waaye man mbër yi laa gën a xam ay waay waay mesdames et messieurs Sénégal seere leen ma de cinq joueurs laa laaj petit cinq joueurs équipe nationale booy eh, sa diggante yàlla yow sénégalais non sénégalais la mais tamit xam nga nit ki tamit man sama gaale wax dëgg fa yàlla non non man kese maa la